ina bu siaré sunu kilifa Cheikh Mamadou Mountakha ñaan sunu borom gën ko sam gën ko dëgëral waye di ndokkeel bokk julli yëpp nak ci ni ko waxee wër wi ñu tabbi di wër tabaski bokku ci al ashhur al hurum wër yi nga xam sunu borom daf ci def worma wax ne li mu yi fukk lañ fa yalla ak ñaar waye amna na ci ñent wër yo xam yalla ñu wormal wormaal bu dikkee bu leen toñ seen bokk bu leen ci def lu defu bu leen ci sàggan ba yu den raw weer wi nag màgg na lool suñu Abdul Ahad ah. ba dañoo ñëw ci tabaski waaye fukki fan yi ñu nekk nii rek ñu bàyyi xel ne yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na lu ñu defal yàlla ci lu baax defal ko ko ci fukki fan yi moom gënal ñun amul yenn bis yoo xam ne yàlla bëggee na ci lu baax ni mu ko bëggee ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski saxaaba yi ne ko ba ci jihaat mu ne ba ci jihaat fi sabilillah li muy rëy rëy jëf lu baax ci fukki fan yi ko gën neen lu dul koo xam ne dafa génn joxe alalam joxe ba kanam. Ah. deseetu dara kooku moom kenn féetewu kaw. fukki fan la yoo xam ne eh, borom xam-xam yi nee moom mooy al ayyaamul maalumaat. alquran ah. di wax mooy it eh, wal fajri wa layaalin ashr fukki guddi yàlla giñ bëccëg yi fukki guddi yi lay wax dañuy wax ne Ramadan fukki guddeem yi mujj moo gën ci at mi waaye fukki bëccëg yi njëkk ci tabaski ñoo gën at mi. sahaba yi eh, bokku na ci liñ ko daan dundalee génn di dem ci jaay di tuddu yalla wax na ni ko ben abou Abu Hurayra ñu mel nañ ko daan def nga xamne bu bëccëgee dañu dem ci jaay di kabar di tuddu yalla motax waxtu wuñ bëgg koy tuddu yalla bari la ku mëna wor juroom juróom fa fan nga wor ko rawate na juroom ñentel ba ak juroom ñettel ba bisu suñu wor la bisu juroom ñentel te mo yow mu arafa bu dé fi ci Sénégal moy gaaw li nga xam ne mooy doon juróom-ñeenti fan ci weeru jullit di nekk juróom-ñeenti fan ci weeru mois de juillet ñu doy islam nee na woor ko dana far bàkkaari ñaari at kon yiw rëy nga ci tabaski door a ñëw nag borom xam dañuy wax ne eh, li tax ñu jàpp ne moo gën mu gën ci at mi li ci daje ci ay jaamu yàlla dajewul ci yenn bis muy tabaski muy aj màkk gi koor gi ñu ciy koor yu baax yi ci daje ak yow mu araf bi ci nekk te gën ci bis yëpp nga xane bu dikkee sun borom day fay jam di puukariw di bëkki jaam yi nekk màkka di ko ajal di di di ko kon moy bisi yi bëccëg yi gën ci atmi bu ko defé nak fukki fane tabaski fukki fukkeelu fan mo bis tabaski ak fukkeel ak ben ak fukkeel ak ñaar ñetti fane yooyu mo ñetti fane tabaski yoo xam ne yonentu bi ay yaamu aklin wa shurbin ay bis la yo xamné dañuy téré sax ko ko war dañuy ko ko war euh, tabaski nak sunna su deugër la bokk na ci shaa'ira la min shaa'iril islam yoo bëgg julli di fonk nga xam ne du jaadu ci am réew ñu ñëpp ñu lànk bañ ko def su su dëgër soo xam ne deret ji ngay tuur ngir yàlla li ci nekk ci aw yiw kenn xamul toll sunu borom sunnaal ko ci képp ku ko man képp ku ko man eh, di as gor di ab jullit donte gone nga waamee alal sunna la say kilifa tabaskil la ndax jaamu yàlla goo xam ne yiw wi Eh, ñëpp lañ ko bëgg def ku ko mën nag li ci boroom xam-xam mooy man-man bi mooy alal ji nga koy jënde bu mu doon loo xam ne loo mënta ñàkk la ci biir at mi waaye daal nit ki bu réglé dépasse yi atam li muy lekk li naan li muy sol bu dee koy fay ndox ak courant nangam yooyu yëpp bu desee lu matul tabaski tabaski sunna la ci yow xawul toll muy sunna su am solo soo xam ne eh, dundal ko baax na lool ndax saa bu nit ki rendee ngir yàlla lépp lu ci laa rek aw yiw la waaye ñu bàyyi xel nag jaamu yàlla la boo xam ne nit ki bu koy def na xam ne xar mu xas rende ak jaamu yàlla la luñ luñ cey luñ cey jaay sañ nga caa lekk sañ nga caa maye sañ nga cee saraxe sañ nga cee denc waaye nag doo ci jaay dara dee su jaay der bi dee su dee jaay yàpp wi doo ca fay sax ab feeskat bu la feesal nga fay ko ci yàpp wi da koy fay leneen kay su dee faqiir nag mën nga koo sarax wala muy mbokk nga may ko ngir loolu waaye bu ko bu ko bu li li def dañu bëgg it nit ki di rendel bopum ab gàttam yonent yalla Muhammad ali sallam moko ko daan rendil boppam ci loxom tedd ba soko mënut ki ngi rendelo na don ko le dinem doy ni comme am diine so soo amee ci rendi bu ko rendelo nit ko amul diine ko xam ne diine woyof dafa woyof ndax jaamu yalla la dafa dafa ko su bop ma nga dafa lako ko koo xam ne sa dal la ci mom lool la yonent islam santane euh bis bu ñëk bi mo gën soko mënut moy moy moy kon dibeer ku ko mënul altine ba jant bi so boo ko mënul talata ba jant bi so talata bu jant bi xasse so ku ko mënul tuddu aj boo ko mënee ginnaaw bi na la ndax ñetti fan yoy la ñetti fan yoy la guddi kenn du ko rendi ba tegg lañu rendi bu dee bis bu ñëk bi yor yor bu iliman jullee ba rendi ba noppi bis yi dess nak bu fay raxasse jot wala yor yor sax mo jëkk ba raxasse ci ko rendi wax na euh, yap wi nit ki mën na tebeski jënd am xar mom ak ñim jabooti ci kërëm luñu bari bari bu fekkee ne ak njabootam lañ mu leen di dundal bu leen yéene waalee tabaski wàcc leen nit ki nag moo war a tabaskil boppam ak i doomam ak i way juróomi ñàkk bu amee soxna am na tabaskil ko waru ko waaye su ko yéene waalee cim xaram wàcc ko lu ma tax xam na jaamu yàlla nañ xam ne ñu ko mën lañ ko teg soxna si bu amee alal sunna la ni mu nekk sunna ci borom këram waaye nag bu ko borom këram yéene waalee cim tabaskeem ndax ci njabootam la bokk tabaski waye nak dee su ci yene wala jambour bo xamne ni bu ko ci sa njabot wala ta yow wala dundaloo lolou kuku bëgg def man nga ren jël am xar def ko ngir yow ak sa njabot jël menen xar ko ci bëgg yene man bu la neex yene ko ci en Muhammad Ali sallam bi muy tabaski am na at dafa ren di am xaram dan ne xar mi muhammad ngir Muhammad la ak wa karam ren men xar nak ne mi mom ñi am yene tabaski te ñu ko ci xet yentel Muhammad yëpp loolu ba tay kilifi dañ koy def war a dalal xel mbokk julli bari nga xane ne amuñuy xar seen xel lal xamni amna am yoolu xar amna nañ yoolu tabaski ndax nit ñu bax ni dañ leen di yene waale ba wa tuyaaba diñ am dañ ko am ci yu te liñ ci soxal deug deug tuyaaba ji la moo nak ni ci nit ñi sonne yi daf ko daf ko jamono ji nga xam moy doon jamatul nit ñi agut fofu nak nañ ko jàppale ni jappé aj màkk ku aji wut da dañ ko mënul bu asaka jotté ku génnewul asaka warul ndax amoko tabaski ku ko amul noonu mel du aada bi ñu doonee aada nag mu indi jafe-jafe yi te it lor ji ci nekk mooy lépp lu yàlla moom boo ko defee ngir aada da nga ñàkk sa alal te doo ci am te doo ci jariñ waaye lu ma ta moytu la sëñ Abdoulaye jullit ñi xam loolu xam ne ak jaamu yàlla ku ko mën daal bëgg nañ nga def ko ci anam gi ñu wax su ko defee lépp nekk aw yiw bu yow nga xamee da lay jëriñ jëriñ sa njaboot xar mi ñu war a war a rey ci tabaski nu mu war a mel waaw xar mi ñu rey moom xar mi ñuy rende ci tabaski na am at parce que dañuy wax ne daaw yow mu arafa xar mu ko juddu woon bu renee mën na tabaski ah. nga xam ne benn biis dong bu ko tegalee man na tabaski bu dee bëy nag na mat at tegal weer gën jaa néew yooyu yooyu mooy mooy yi nga santaane ah. te mucc nag ci ayib yi nga xam ne day tax du doy ah. bokk na ci bu mu doon feebar ba nga xam ne ku seen xam daa feebar bu mu doon muy soox bu mu doon manqué ab cër cër bi ñuy wax nag bay jën bokku ci béjjén moom bi ñuy bañ mooy mu béjjén yi foq damm te góom ba des fa te wéeragul. Uh-huh. moom matul tabaski waaye su wéree ba nga xam ne góom nekkatu fa mën na tabaski. Uh-huh. xar mu ñu tàpp mën na tabaski kon bu ñuy wax manqué cër yooyu taxut ñuy wax moom waaye bu bu bu gen ba daggee lu mat sulus bu waa matul tabaski ndax lu lu mat la war a doon ndax yàlla lañ koy jox. Uh-huh. kon wari su ko jox lu manqué wàllu sikk bu dee moo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa. dafa dafa dafa wéré di bu amatul dara ci garis ku ko seen xam da daa bo boobu mënut a ko la bu ci mu ci sey bilaat kon nañ ci dégg eh, jëfé wut xar mu mat at rek mën naa tabaski ndax jigen su man na don jigen jigen su rendé dina dagan waaw ci l'islam jigen man na rendi ni góor man na rendé dañu bëgg kuy ci ku ne nga rend sa bopp day jigen té mom xaram su ko mané rend na ko defal boppam su ko mënu mu dara wutal ko xamné wolu nako ci diiné loolu nag saa su ñu bëri dañuy jàpp jigéen bu rendee du ah, wér rendi moom lañ ñu ci sant na doon ab jullit mbaa mu doon ahlu kitaab uh-huh. tey it sart rendi yi mooy nañ na dagg li war a dagg ci uh-huh. anam bu ñu ko war a dagg uh-huh. loolu lañ ci sart jullit man na bu def bu dee bu ràññale sax bu mu doon nag ko xamewut gone gu ndaw gu xamewut bu rendee medd la ku tàggoog sagoom ba xamatul fi mu ne medd la ab yéefar boo xam ne gëmul yàlla bokkut ci jenn diine bu rendee meddi la anam gi santane nañ ko rendee ci karam lañ ko rendé dag xolxoom bi ak ñaari siri ku sekk bu ko daara ci ginnaaw bu fe medd la xeyna na mo ci bata baye xel waye kuñ ci jangal anam gi wara rendé muy góor gi muy jigéen bi bu rendé bu baax waye nak ku ci nek na nga xam ne nit ki rendi am xaram moy sunna su ci amé ngant nak door ko def lo kenen ndax yere yi ñi sol ci di julli dañ cee sartu mu bes mu doon yere yu bes waaw julli tabaski mom dañu bëgg julit bi bis bi bisu aid la dañoo bëgg julli bi di ko feete kon sol ci yére yu bees moo gën sol ci lu beesu uh-huh. donte lu bees lu ñuul la moo gën lu weex lu beesu uh-huh. mooy safaanub ajjuma ajjuma moom sol lu weex moo gën lu mën doon donte da bu mu màggat weex moo gën bu mu weexut te doon mu yees waaye bu dee it nag mu mu yees la ñu soxla ñan ñoo war a julli ci ci ci tabaski ñi nga xam ne ajjuma farata la ci ñoom sunna la ci ñoom ñu julli ci kon mooy mag hmm. mu dekk ci dekk bi nga xam du musafir don asgor nek mu kàllaf ñooñu sunna la ci ñoom ñu julli hmm. su ko defé ko xamné julli ji raw na la yit sop nañ nga julli ko sa kër hmm. waaye da ngay bëru julli kon du ñu wax rek ne julli nañ ba noppi mom jaxna su suñ jullee ba noppi te nga am ngànt wala nga dem fekk ñu julli bëgg nañ nga julli sa julli waaw jigeen ni sax dañ leen di diggal ñu dem ci kay no soxna suma sa wax ne buñu ma saan am ngànt ba duñ mën julli sax dañuy wax ñew leen teew fekk ñaan gi hmm. dañu bëgg ñu genn mbolo yi genn dajalo ci ëtt bu yaatu ñepp teew fa ñu julli xutba door tasaaroo hmm. kene koy dal bu yoon nga jaar sa dañu bëgg bu depp nga jaar benen yoon hmm. euh, loolu mom ci ci ci sunnay bis bi la bok di mbekté mu reey nga xam bis bi dañu bëgg bis bu dëkke ñepp sangu ma it wut na aljuma aljuma ki julli ji lañ bëgg mu sangu mhm. bisu id nak julli du lañ bëgg mu sangu sangu janaba wala sangu sangu ba set sangu mhm. yaram rek sangu sabu mhm. ngir taaru ci bis bi rek nga xane di den nak sa morom jullit eh, yore xet gu nakar lañ ci bañ ñu bëgg bis bu daal ñu sangu mag ñi sangu gane yi ñëpp ñu sangu bañ set bu le mané solal yére yes ñu solal leen ko bu ko defee muy tour tuur deret jaamoko yalla njabot gi lek ci bëkki ñu saraxe ci maye ji buñ bëggee denc denc waxtu wi nga xam ne ci lañ war a julli euh, ci ci ci bisu tabaski maanaa fu mu tàmbalee ak fu mu yem ba waaw xam nga tabaski julli gi naafile la. Hmm. naafile moom saabu waxtu naafile daga ne mooy bu jant bi fenkee ba dox lu mat genn wàllu lu mat ñetti mètre wala ñaari mètre ci gisu bët. Hmm. maanaam daal su jant fenkee trente minutes ginnaaw bu jant fenkee la fa tàmbalee ba tisbaar tisbaar la yem. Hmm. bu tisbaar khasai jot fatna na bu jullee jëratu ngay kon susun sunna si foofu eh, kon manis na Juli, julli su jant fenkee léegi nag fili ak naafile ak ak ak tabaski li ñu wute mooy dañuy bëgg bu tabaskee hmm. yu yeex a julli moom hmm. ndax may di ñu génne muuri koor yi door a julli bu dee kor yi bu dee kor yi hmm. bu dee tabaski nag dañuy bëgg ñu julli ndax rend ndax kan amna mbokk yo xamne dañuy yakamte rende ci lool te ah. xamuñ ne njëkk rende imam tamit loolu ah, ah. ana ci masab bi ñu mhm. ku njëkk rende sa iliman yap tabaski yap aw yap ngam wa mhm. waaye yoolu amu tok mhm. ngir mu nek tabaski bis bu njëkk bi da ngay nek ba sa imam rendi nga do rendi loolu motax ñu bëgg imam yobbu am xaram ca jullikaay ba su julle khutba rendi ku delu sa kër xamne ne sa waxtu rendi jot inshallah ñu amul iliman sax dañ leen di sant ñu natalé bu ñëwoon dëkk sangam kat li ma am fooye nekk seen diggante ak nangam. Mhm. ñu ne ñoom kat di 9 h la ñuy julli daanañ toog 10h moins quart la imam di rendi dañ nattale. Mhm. ba 10h moins quart weer suñu door rendi. xam ne ba xam ne imam bi war naa sëlmal rek imam ñu door rendi. Mhm. bàyyi xel loolu baax baax ne. yàkkamti jóge ci jullikaay bi am na ñoo xam ne duñ nekk sax xutba bi imam day sëlmal rek ñu daal di wut seen waaw bu ñu àggee daal di defar. <laughs> te bu fekkee xutba ba xaw naa diire ba ilimaan nga njëkk a rendi sa ilimaan am nga yàpp de waaye amoo yoolu tabaski uh-huh. loolu du mat a bàyyi xel jaamu yàlla ba noppi sa alal dem te jëriñoo ko it nag loolu it solo uh-huh. jar na moytu baax baax waaw ndax day farata wala day force ci nit ki mu xottil lu bees ay njabootam ma maanaam jënd xar mi ak xottil soxna yi ak doom yi lu ci gën a farata waa xam nga benn du ci farata hmm. benn du ci farata fa hmm. ab ab mbégte boo xam ne day sànni daa wax ne sunna la ci ku ko man hmm. ku ko man su bis bi dikkee na nga wut am xar rendi ko jaamoo ko yàlla sant ko yàlla bégg bégg bégg ci jariñoo ko jariñi ci bisu mbégte nag day ànd ak yooyu ko am loo sol yu bees sol ko bu amul lu bees fóot la nga amoon mu set nga sol ko maa daal bul génn ci nit ñi daal ñu naan ay ca ay gore ku ci xottil la sa soxla daal moom lislaam gallu la ci dara ndax warul soxna moom ci lislaam ñaari yoon lañ san nga xottil ko hmm. mbuubum tàngoor ak mbuubum sedd bu xëfee xarut santaatul la nga xottilaat ko hmm. li ci des suñuy aada la xew jot nga xottil ko moom ku ko man it nag lu baax la ah, loolu gars yi lañ ciy daj nag lislaam santu ko kenn ah. lislaam santu kenn ne saa bu taw si diggéen nga xotti njaboot gi hmm. waaw tàngoor mu sedd daal moom ak la hmm. joo ko amee ji wodd gi nga ko war a mu am na am mu muy sol bu tàngoor bi dikkee na am mu muy sol bu sedd bi dikkee saa su ne loolu soo ko xasee def ci sariya wàccoo nga moom léegi nag yaatal nag kooku man wàññiwul dara waaye na fekk man ko moo yu baax yëpp ñoo yem bi ci des fukki fan yi bokk na ci li mat a fàttali sëñ Blaat ñëpp islaam nee na bu weeru tabaski teroo mhm. ku nam ma tabaski ci yéen mhm. bu mu laale ci kawaram bu mu laal ay wayam lu am solo booba muy julli ba noppi mhm. nam ma tabaski yi nag ëmbaale na njaboot gi nga bëgg a du rek borom kër gi waaye njaboot gi nga xam ne borom kër bi fas na leen a yéene waale ci tabaski ci loolu lañ dugg ñu bañ a leewi ko bañ a watu buñ leen buñ leen wat bu noppi weeru xasitaru buñ leen leewi bu kenn wat genn kawar loolu de moom moom sëñ bi mat naa hésité ndax da ngay gis ne nit ñi moom bu ñu dee waaj julli salon coiffure yi ñi watoo day xat fees dell loolu du sunna si yonent bi ay salaam mooy da ngay julli ba ñëw ren sam xar def nga ko da ah. sa wax na képp koo tabaski teroon nga ne moo julli bu laal kawar bu laal way ah. mooy sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah. kon sëñ bi dafa mel ne eh, ñu fàttali bokk yi nga xam ne ngi ñuy seen émission gàgganteku ñu ngi ci daru Eh, salam ndam ci kër Serigne Mbacke euh dafa melne ne ne li aju won ci tabaski gi liñ bëggoon ñu leeral ñuko wala ñu gàggante ko ci leer bu fekkee amna lo ci lo ci mottali rek. ah lima ci bëgg a de moy lima waxon waxoon diko di wat ñu bis bobu bisu jokk diggante jambe ak borom la. moy mhm. julli bak yalla yi kañ gi. Mhm. diko kañ. bari lu allahu akbar lol ñett fan yépp waye bis la ñu rafetal digënde sa morom jàmm kon ndawal gi ngay défar lek ci saraxé ji bu ñëk sax dañ doon tere denc yàpp tabaski lu ëpp ñetti fan bi dem am salaam moo dagan la ginaaw bi loolu lañ ci dégg rek ne dimbulé ko nit ñi nga xamné tay ñi tebeski tabaski buñ doon bayyi xel ñi amut ñëpp leen lek ba suur mel ne bis bi loolu lañ ci bu deug deug loolu la nga xamné ne kon boo reyam xar wala nga ray ñaari xar melni ne ma nga saraxé ko tassalé ko moytu nag jox ci koo xam ne du jullit ak jaamu yàlla loo xaritoo xaritoo nit ki bu fekkee ñëwul ba si biir kër añ jot mu fekk la ci kër gi moom kooku doo ko ne bu lekk waaye di tibb di leen dañuy wax ne jaamu yàlla la koom koy jox na doon koo xam ne yayoo na ab jullit na moom lañ ciy sarax moom lañ ciy may waaye nag ku bokk ci leneen te bokk seen njaboot wala ñëw seet si la bis bi bu ci lekkee doo wàññiwul dara uh-huh. waaye loolu ñu bàyyi xel ndax ñu léeg-léeg xaritoog dëkk barab yi day jur uh-huh. waaye ñu xam ne jaamu yàlla du leneen waaye nag yooyu it yëpp nag jëru di ko wane woo ko uh-huh. jàppal ne yaa ngi koy def ni jaamu yàlla bu amoon sama yàpp sax may leente ngir xëy na seq ngeen ko dara nekku ci waaye bu mu doon yàpp wi nga xam ne dañuy tere ko ko jaay dañuy tere ko ci jaay dara jëm yàpp xanaa leen ki nga ko sarax moom moomu yàpp maanaam yow mi ñu rendi xar mi la ñu wax ne la bu ko jaay. feeskat bi soñ te jël baat baat bi moom. ndax boo bu fekkee da nga koo fayee dëgg te fii moom dañ ko fay. loolu mooy jaay la mooy waa da laa feesal xar mi nga fay ko baat bi dañoo bëgg nga fay ko xaalis wala nga fay ko leneen. Mhm. boo noppee nag bu dee faqir wala muy mbokk sañ nga ko may waaye boobaa la gën sax nag bu ko may baat. Mhm. baat day nuroo àqam yu mu jël. <laughs> Mhm. loolu jàpp naa ne sëñ la jar na bàyyi xel baax a baax. ci ci ci ci bu ñuy bu ñuy bu ñuy tabaski.